man gis naa ne waa kër gi à chaque fois lu bien la ñuy def parce que jàmbatu askan bi moom la ñuy yëkkati lu ci bëri tey jii nii ñoom li ñuy wax mooy li nga xamante ñun ñu ngi ko bëgg a wax te amuñu kàddu jamono bii nii comprendre loolu moo waral loolu noonu yëpp. gis nga ci réew il ne faut pas que nit ñi di cautionné maam di may doole li ñaan indiscipline parce que indiscipline moo tax réew pour mu développer day jafe te man son bi déglu naa ko ah déglu naa ko yaa ngi ne seetaan naa mais il faut que ñun sénégalais ñu am respect envers ñi ñu jiite envers suñuy institution envers suñu président de la république yaa ngi dégg envers autorités yi nga xam ne ñun ñoo leen jël fol leen yaa ngi mun nga wax wax bu rafet ne lii liggéeyul liggéeyul lii sans pour autant que ngay tenir des propos outrageants à l'envers de l'autorité loolu c'est pas naan c'est pas joli te man bëgguma nit di cautionner loolu naan waaw dafa baax wala dafa baax même boo nekkee sax ci opposition loolu waroo ko cautionner parce que ëllëg si biir te appelé à être un président ou quelque te bëggoo ñuy saaga yow sa papa bëggoo ñuy saaga sa rak wala sa mag donc loolu kenn waru ko yaa dégg may dool bi dañ leen war a dèjà présent ñu leen lii ndax institution mooy mooy mooy doxal réew kon mën naa mën naa mën naa d'accord nga nga nga kaas mais li ngay kaas na ànd ak respect ah parce que tamit bàyyi jàmbur boo saaga tamit bàyyi jàmbur la du dëgg bàyyi jàmbur boo saaga mbaa sa mag mbaa nit amul droit di insulte loolu baaxul loolu baaxul je ne pas d'accord. Maguette pour man. Euh, sénégalais yépp la xaw a ci si benn côté parce que Macky bu avant niñ ko doon gisee ni mu sérieux air bi mu par rapport ak bi mu toogee la du benn. wa xam nga ñom déception bu ñu am si président de la république rek nit ñi seen bop am na ñoo am nañ déception si taw waxu ñu leen ko parce que euh du lu naxari askan bi yépp ñom ñu ci dox 100 pour cent ñu ñu xol côté bi nga xam arrangé si nyom ñu dox lolu man damay gis lolu quoi léeg-léeg ma gis lo xam dama naan waa waa ana waa kër gi waa ana waa euh, ñale seen seen beneen groupe bi euh, yanaamaar ah du leen si gis kon ñoom su ma su fekkee comprendre naa seen situation mooy li leen arrangé tout le temps moom la ñuy nekk di exposé man na gaw ma loolu man soo waxee loo xam ne ni dafa correspondre ak li li li nit ñi di ñaxtu damay ànd ak yow 100 pour cent. nga le problème du Sénégal c' un problème de système yaa ngi dégg tu peux à chaque cinq ans nga saaga yuuxu yaa ngi dégg xas keneen ñëw nga toog beneen cinq ans bi aussi di nga fi faire la même chose parce que tant que changé wuñ le système de gouverner Sénégal y toujours ce problème là et que chaque année dañuy bëgg di changer de gouvernement di changer de président. faw ñu toog yaa changer d'abord le système des sénégalais changer d'abord notre suñu mentalité de voir les choses changer d'abord abord suñuy avant aussi ñuy changer le président parce que le président ne reflète que li xam de la population bi di dund donc président Macky Sall ñun man ba ma koy fay 2012 vision boobu laa amoon yaa Bon dégg ba mu ba 2017 gis naa ci vision bi affaire loolu neex ma ci man je dis que mën na ko neex mom loolu buma ci neexul ma retiré wu dem voter kenen c'est tellement simple